naan maan wiiri wiiri gi lu mu bari bari fitna gi lu mu am ci réew mi lu ñu bàyyi ne du ñu bokk ak lu ñenn ñi jàpp saa si tembe di xeex jàpp leen ni la ngeen di xeex day juróom-ñaar ciy weer a ci des l'enquête quotidien naan maan présidentielle bi nga xam ni moo tax kenn tëddatul kenn nelawatul kenn waxtaanatul ci biir kenn toogatul te daanaka kenn taxawatul juróom-ñaari weer ma ni moo ci des tribune yéen kaay naan maan waxtu woo président Macky Sall moom gët ya ma nga teg ci mu soppee gouvernement gi soppi goo ni mooy bu mujj ci ayu président Macky Sall ay goo xam ni njeextalam ay ñoñam ci le quotidien quotidien le quotidien nee ñu nar na métti ci ñoom wala turbine yéen a kaay naan kon ma ñëw moom président Macky Sall day faw mu laalaat gouvernement gi mënta ñàkk coppet ci bii teg ci bee bee ne ko rajax mënta ñàkk Sall faw mu xoolaat doxalinu ñenn ñi tegaat ñenn ñi daal di jël nag ñeneen teg ci ruq l'observateur naan président Macky Sall kay daanaka yéréb directeur de campagne daal la solal waa APR naan leen bu ngeen ma toppee gis ndam wala ci juróomi waxtu yéen a kaay bi ne ma fanweer ak juróom ci ñoo xam ni dañ doon àddu di waxtaan ak président Macky Sall ci seenug ëllëg nu muy demee yéen a kaay média bi naan président Macky Sall ma nga naan ay ñoñam danaa leen gunge ba ngeen gàddu nguur gi yenn ci ay député saxoon ci naan président Macky Sall defal beneen mandat le quotidien le quotidien naan beneen kàddu la ñu am ci président Macky Sall mbir maa ngay ñaaw l'observateur naan kon ma yëgli ndax président Macky Sall ma nga naan leen bés bu ngeen ma toppee gis ndam danaa xool ka sama bët tegu ci moom ma ne ko doxalal sampal ko ndënd mi te bu ma toppee am ndam vox populi naan kon waa APR ci boppam ña nga naan kon Sall doxalal noo jëfee nañ ci ak yow xoolal doon sunub candidat l'observateur naan président Macky saal nee leen naa tabb waaye affaire d'état la du ma tabb ab waye waya yéeni kaay bi naan man waxtu woowu Sall di tabb te matalagul Abdoulaye Diouf Sarr moom nee na candidat la Abdou Aziz Diop nee na candidat la Sall naan leen maa ngi dem de waaye rew mi duma ko bàyyeeg benn bojo bojo mu koy taal Le Quotidien Le Quotidien naan man mbaa du président Macky saal nag moo nar a taal réew mi ndax xam nga Karim Meïssa Wade Khalifa Babacar Sall yi mu bëgg boolewaat ci làng gi mi ngi metti lool tribune yéen kaay ne ko may ma ma yeggaleeg Sall xamal ko bëgg jël jël mu nekk ci sa giir nga tabb ko ngir mu doon candidat APR waxtu waa ngi dem mbir yaa ngi lay dab ndax nag ba nga bëgg faloo waxtu wi yaa ngi woon ci biir réew mi di campagne war nga xam ni sax ab élection présidentielle dee su ko gañe toog ndakaaru wala it sës mbir mi ci ndakaaru kese yaa ko tey yaw sàll yaa ko gën a xam ndax ba nga soxlaa réew mi amul foo duggul moom président Senghor ba mu soxla réew mi dafa wër ba kër Madiabel ab garab ñu duppee ko xay Senghor Abdou Diouf ma koo wuutu amul mu bàyyi ci réew mi Abdoulaye Wade kazalika yow nga jii juróom-ñaari weer des ci fii ak août ñuy jëm ci parrainage président Macky Sall ba nii xamuñu kan mooy sa candidat nga jàpp ni nag mbir mi mën naa yem ci ndakaaru déedéet ka ngay tabb dafa war a am base politique ka ngay tabb dafa war a ne xam ne waxuma la ndakaaru waaye Sénégal gépp ko yitte woo daal di koy xam te yow Sall yaa gën a xam ne réew mi deesu ko gañe ci làmbaatu le point yéeni kaay nan man en tout dogal gi mu jël ci ne doon candidat Abdoulaye Sidey ma ngi koy rafetlu naan président Macky Sall ab patriote la ab démocrate la ab républicain la tribune naan man beneen candidat ci élection présidentielle yaa ngi nii Ibrahima Sissoko lay wuyoo borom mouvement moom pays mon avenir nee na nag nanu moytu di tëñ tëñal xool ki fi sës ñu daal di koy fal ndax saa su ne nag mën naa andil réewum Sénégal ay guuta fal gi daal nañ ko teg ci lu leer ci kóolute fal koo xam ne du boye waya te bu yore réew mi di dinañ ni acam 24 heures yéene kaay naan man politique u réewum Sénégal day acama ci ëpp ndax ñi ko jiite ci boppam wàllu politique gi seen gémmiñ day saxaar jàmm moom doo ko ci dégg saagante xastante wax kàddu yoo xam ne réccu da cay am fëgg dëgg sa dënn daal di salteel keneen la nga waxoon démb wuuteeg la nga wax tey ay kàcc ak i sos yoo xam ne ñi ngi koy def ci doomu aadama bari ci ay menace bari na lool tey ci langue politique gi ci réew mi te ña nga xam ne ñooy politique ci réew mi ñoo koy def yuuxu ci kàddu goo xam ne daanaka la cay génnee du benn njariñ ci réewum Sénégal wax wax yu ñaaw yu salte yu bon lii moo bari ci réew mi ña nga xam ne xale yi ñooñ leen doon roy ci wàllu politique fi mu ne nag ñooy yëkk kàddu ñaaw yi jëf-jëf yu ñaaw yi ci réew mi lii nag bu ñu ko defee bu mu leen yéem diggante 2021 ak 2023 xale yi ne ci réew mi respecté wuñu benn règle respecté wuñu benn institution ci réew mi respecté wuñu am am bi nga xam ne gouvernement ko fi teg ak bu keneen ñaxal boppam ñu dem ba jàppee ab résistance jëf joo xam ni nii day ñaaw bari na ci politiciens yu nekk ci réew mi ñoo xam ne fi mu ne seen aasu retraite ci boppam la ñu daal di toll ndax jëf jee ñaaw Zeynab Sankara ci le témoin yéen kaay daal di ubbi laaj gannaaw président Macky Sall nee na dootul candidat bu APR gan yoon mani la moom la ñoñal Sall ngaari lam tooro buur gédé gii mën a jël ngir nag mën a génn fi mu ci politique fi mu toll ci réew mi Abdou Khadir Sanogo sociologue naan APR day bu ñu booloowul daal di faatu fa yàllaahu Assane Samb journaliste politologue naan ko APR ma ni am na ci ñoo xam ne dañuy dem gàddaay mënoo ci dara intérêt ñeex ma doon saf moo leen fa bawoon fi mu ne comme ñeex amatu fa am na ñoo xam ne du ñu toog professeur Moussa Diaw analyste politique ci yéenekaay bi naan booloo mbaa faatu rek Sall dem na boole doole yee ci des xiiroo geeg ŋaayoo gi daal di jàll na le ñu doo seen mbër buñ bëggee am ndam tribune yéenekaay naan maan en tout cas Karim Meïssa Wade Khalifa Ababacar Sall kuñ ne Sall ngéem bu leen dañ lay nax conseil des ministres ma ni na ay loi yoo xam ne day fas yéene soppi cartum réew waaye soppi it nañuy daal di wotee ci réew mi lépp tukkee nag ca dialogue national ba réew mi ko dijee naan kon ay projet de loi la yoo xam ni kay Khalifa Babacar Sall Karim Meïssa Wade la soxal critique yéen a kaay naan mu bari te set wecc leen leen di raggee ñu bokkaat ci langue politique gi ci réew mi le quotidien le quotidien naan koon ku jàpp ne assemblée nationale day ñëw rek ñu setal leen yaa ngi nax sa bopp wala ay député yoo xam ne ma ni la ñu jege lool président Macky Sall lañ yàgg li xeexal président Macky Sall nee ñu boo moytul bu projet de loi bi ñëwee dañuy banque seen loxo duñ ko wotee wala yittu ñu la nga xam ni moom la Khalifa ak bëgg ak président Macky Sall nee ñu sàll nag dafa dem bay bàyyi bëgg dugal APR ci ndëgg sa goo xam ni maar day taali ndax moom Sall ba muy falu muy neex ci moom bëggul woon benn yoon xalifa ak Karim nekk ci wetam ndax jàpp nañ ni ñaar ñii am nañ doole ci wàllu politique goo xam ne à tout moment mënoon nañ ko yàqal jàll tey di dem nag bëgg yàqal ay gaam gaa yi ne duñ ko wote Walf Quotidien mel ni ku naan mantee ngeen a noppalu ndax coowal Karim Meïssa Wade moom dépassé na lii lépp de ma nga laal nag ba ca buurub Qatar ba Le Quotidien Le Quotidien naan ko xanaa déggoo ay député ci boppam yu APR ñoo ne duñu ko wote ndax président Macky sal nag def leen di tay le bàyyi bay dem nag bëgg leen dugal ci ndëgg sërëx tribune yéen a kaay mel ni ku naan kon ñoo la ko ñaan rek président Macky yaa ngi dem waaye xaalisu coronavirus bi moom na leer yaa ngi bàyyi nguur gi yow président Macky Sall waaye bi nga xam askan wee ko ñàkk nattal la ko jox la ko ne la doxalal Sénégal bu mu yëg mbas mi nga am xel mu dal ci ñenn ñi ne leen jël leen xaalis bii ngeen doxal ko jébbal ko askan wi faj leen ci dundal leen ci ñooñee néeg ba mën a dompatub néew jël xaalis bi def ci seeni gafa lekk yow sàll ngaari lam tooro buur gede bul dem bàyyi ñoo xaalisu covid bi na leer njoogu siisa ci tribune yéen kaay nan kon président Macky Sall ma ni la goxi wala fay ndax xaalis bi nag ñoo ko ñàkk ñun baadoo la ay buur yu ñu ëppale fuuf ba koo siime seen cere duñu ko nangu na leer rek tribune sport mooy diggante seen ak tafaatin taxaw na libération yéen kaay naan man coow laa ngi ci xale bu góor bi nga xam ne dafa sàkku benn xale bu jigéen bu am fukki at ak ñaar ñu négocier ko mu doxati ba ay jëmmi jamono mu sàkkuwaat xale bi daal di daw nag bi yoon dem Cameroun ci tabaski ren gii la ni cëpp senegal ñu daal di koy jàpp réew mi ko dajee naan ñaawteef yàgg na ci réew mi xoolal xale bu am fukki ak ñeent moom la ñu sàkku ba noppi daal di koy xoj daal di koy faat waaye ka def ñaawteef ba dafa dem jébbal boppam police balaa ñu koy jàpp lu mën a mbokk yi ñu ñaan jàmm te yendoog jàmm